الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية سلام قديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الأهل والأصحاب ربنا سلام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام قلت مقاما قلت مقاما قلت مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام مقام أشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سينسى تمام أنت النبي والرسول والأمم بك انقياد سالمين بسمام لك اللدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أنا اغترام جاد لنا باخ تعالى المنام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك بخلام وخيرا يا سجى مع الكلام نويت شكره عليك كلام وكل شر والكتاب الاتيان هديتي هديتي خذ كرما من الجرام يا غاية لي من لايك المرام تبت لربيك سائرا بسنسام لك وابل وابوت بالعزام تبت لربي سائرا بسنسام لك وابل وابوت بالعزام تبت لربي سائرا بسنسام لك وابل وابوت بالعزام لا laa sabdillahi laa sabdillahi xaadim rasul xaadim rasul xaadim rasul xaadim rasul xaadim rasul ku sopp Sëriñ Tuuba xaadim rasul laa sabdillahi xaadim rasul dunya wa uxra ismatan wa xayr rasul laa sabdillahi xaadim rasul dunya wa uxra ismatan wa xayr rasul laa sabdillahi xaadim rasul دنيا وأخرى قسمة وخير سور من سن أنك تاكل البصرة والجن والملك لن يبصرة هكذاك خير من الورى وأنت خير من إلهك صورا متى إليك الله فضلا طارا كما إليك خاد ما لم يسرا مرتك عجز الذي تفكرا أغمل يا خير بشير شكرا دعوت لله دعوت لله دعوت لله علي البصر والجن أنت قراد بصر للقادة الأجور والمصالح بالدي والجذب وإني سلسالح للقادة الأجور والمصالح fa inni Serigne Saliou min xaadati lu juur wal masaalihu ku sopp Serigne Saliou jug leen taxaw ñu màggal Serigne Saliou ku sopp Serigne Saliou jug leen taxaw ñu màggal Serigne Saliou min xaadati lu juur wal masaalihu bi tey wal gis bi wa inni Serigne Saliou min xaadati lu juur wal masaalihu bi tey wal gis bi wa inni Serigne Saliou bu ñëpp booloo woon naan ma ne na jolli ca kaw ñu sant Serigne bu ñëpp mbooloo woon naa loxo ca kaw bu ñëpp mbooloo woon naa jëleen bu ñëpp mbooloo woon naa adduna dafay neex ba mel ni deetul jeex ca kaw تنسالي أدرنا دفينا بنا ندتو لخجاك وبني ببالا وانا لخجاك وبني ببالا وانا لخجاك وبني ببالا وانا أدرنا دفينا بنا ندتو الجيل na dafay neex ba mel ni déetul ba mel ni déetul jeex foofu laa ko ndax lii daa mënut na ñàkk rek daa mënut na ñàkk rek ndax man ci kër gi laa bokk ndax sëriñ bi da di damaa defal lépp Touba ba ma ko xamee ci la sama lépp baax ci li ma sama lépp dox moo tax fi mu toll nii sama diggante ak moom xooluma ci lu neex kenn xooluma ci lu naqari kenn ak Serigne Touba dinaa ñaan yàlla ak yonte bi jëmmi Serigne Touba ba dinaa sàmmonteeg sama bopp ak sama jëmm ba moom du gis ci man lu may xeebe loolu rek mooy mbir danaa ñan suñ tubaa ak barke xasida moom mii ma taxaw moom nga xam ne daa am ngërëmal yàlla nitu yàlla la wala yu tubaa ku ko xam ak ku ko xamut maa ngi ñaan suñ tubaa barke xasida yi yàlla bu mu gis ci man lu may xeebe waaye sama diggante moom seetuma lu neex kenn seetuma lu naqari kenn suñ rek laa moom te ba ma moom ba tey nag ci laa yokk barke suñ fu ma daw dem maa fay dem fi mu toll nii barke suñ tubaa Mbàkke te am xaalis barke Sëñ demuma ci kenn seetuma kenn moom rek lu mu wax moom laa wax lu mu wax waxuma ko lu mu bëgg laa bëgg lu mu bëgg bëgguma ko ak Sëñ Tuubaa yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla guddal sa fan maa ngi siyaare ñëpp ne eh, daa bëgg mu déwéne bu ñuy ñëw ñu indaale ab Serigne Saliou nee na mi ngi koy fas ci bis bi nee na daa bëggoon mu toq sa nopp nee na loolu la lay dagaan ci bis bi nee mi ngi koy fas ci bis bi nee na kon mi ngoog Assane waaw damay bañ a jiitu sëriñ bi sax waaye waaw bu nee waaw rek waaw la bokk waaw sëriñ bi bu nee waaw rek waaw la nee na waaw kon waaw ah, bu sëriñ bi nee waaw waaw kon dañuy jox seen alin rek nga ñëw barkeelu fukki minute tudd baatu laa ilaha illallah ku jug di màggal li la màggal